Actualité sur Senegaspora.tv. Avec Senegaspora.tv, vous avez une couverture de toute l'information à chaud, 24 heures sur 24. Politique, sport, people, société, religion, économie, environnement. Abonnez-vous vite sur notre site. fii mooy kër yoro dëkk alaaji mooma seen su fekkee ne man aji saar nettalewuma ne ma lii nekk ay fen la yàlla bu ma kaw di ngeen dégg audio yi te dinaa ko dee kenn mënu maa rey kenn mënu maa rey ba may dawal sama oto man kenn maa jóge Dakar samay àndandoo ñoo ëpp doole fuuf mbuur dama bëgg ñu tënku ci dëgg te xam ne ñun ay nitu daara lañ am na ci kenn koo xam ne nee na ma su fekkee xaalis nga bëgg kii xaalis moo tax muy wax bëgg dóor barke Cheikh Ibrahima Niass barki démb yàggul dara hôtel Méridien lañ ma tegal cent millions du ma tudd ñooñu million millions lañ ma tegal soxlawuma ko ndax man duma doomu sëriñ boo xam ne ba ma juddoo ba léegi musuma laaja at maa ngi koy wax ci kaw te sama vidéo yëpp chaque jour moo musuma tukki fenn laay tukki mooy Nigéria gàmm la quatre jours quatre jours